bi sëriñ bi di dem ci liggéeyam bu sell bi suñu maam Thierno la dénkoon yoon wi dénk ko njaboot gi moo des bii tey jàpp nañ ne bokk nañ ni ci li nga xam ni suñ borom fay na ko ci yor bu rafet boobu mu yoroon yoon wi ak njaboot gi ndax tey jàpp nañ ne téeméer ak ñaar at ren ñuy màggal bés bii suñu maam Thierno nag niñ ko waxee léegi rek nekkoon ci at yu gàtt ya wax nañ ne fanweeri at yi tegoon na lu tuuti mu yor yoon wi yor njaboot gi ba dara yàquwul suñu borom kon faye ko bés bii suñu maam Thierno it mën nañ jàpp ne tey démb ak tey référence la woon royukaay la woon ci wàllu jaamu yàlla topp ndigalu sëriñ bi mais ci wàllu économie ndax ñëpp xam nañ ne opérateur économique bu mag la woon ci wàllu mbay président de la république ne jàpp ne suñu maam Thierno war nañ ko wane comme modèle comme tegtal ndax jàpp na ne ci Sénégal mënuñu yootu li ñuy wax émergence ak développement te wéeru wuñ ci mbay moo tax mu jàpp ne bés bii bésu sàkku ñaan la ndax bésu ku tedd la bésu ku sell la moo tax Serigne Bass président la république mi ngi sàkku nga ñaanal ko ci bés bii àdduna yëngu na jamono yëngu na waaye jàpp ne na rek place yu mel ni bii ci ñaan ci fàttaliku suñu borom ci dellu suñ borom moo ñu ci moo ñu musal kon boog président de la république nee na mi ngi sàkku ñaan bu baax a baax a baax nga ñaanal réew mi jàmm am na fi waaye jàmm gën fee yokk nga ñaanal àdduna ndax àdduna yëngu na tey jàmm wàcc ci àdduna moo tax mu ngi sàkku ñaan bu baax gannaaw bu mu la ñaanalee ci liggéey bii nga xam ni tey nga toog toogaayu borom daaru yor ko naal fii liggéey yu am solo yóbbante ne ma nee na li fi naal yëpp xam na ko bu sobee yàlla mook yow moo ko fas yéene ànd rawatina jumaa ji nga fas yéene yeesal waaye xam na ni dëkk bi it am na lu mu yittewoo ndax ku wax woonu murit wax daaru muxti kon boog fas yéene na ànd ak yow ci liggéey bi ba nga xam ni ni ko bëggee suñu borom defal leen ko yéen ñaar ndax jàpp na ne yéen a ko set kon boog sëriñ Ba sant ñang président mi ngi yeesal santam siyaaram jëmale ci yow nga xam ni xam na jàppale bi ci biir ak ci biti zahir ak baatin mu ngi lay ñaanal yow it nga yàgg fi lool ba liggéey yi nga naal yëpp li nga sumb yëpp nga eggale ko ak jàmm mi ngi yeesal it sant gërëm ak ziyaare waajuram sëriñ Muntaxa Bachir yàlla yàggal ko fi lool mu wér sëñ bi daal pour njëkkante ga waxtu wi li ma président yo waxoon bëri na am na luñ ci waxtaanee barki biig waaye jàppal ne daal président sant na la gërëm na la mi ngi sàkku ñaan ci fii ñu jëm ju mois de juillet incha allah ñu jëm ci ay élection nga ñaan suñ borom def ci dal def ci jàmm defal ko ci ndam lu yaatu ba liggéey bi mu sumb ci réew mi mu eggale ko ak jàmm sëriñ